asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax ci bis bu tedd bi bisub soxna su tedd si muy maam Njaaratu Laay Buso ñu ngi fii ci Poroxaan ci kër sëñ na Njaay moom sëñ euh, Cerno Buso suñ Afiya Buso ñu ngi siyaare mbokki taalibe yi nga teew yépp sëñ Abdoulaye Coulibaly sëñ. Saliou Faye fay Saliou Faye sëñ euh, Mamadou Gadiaga sëñ Yoro Faye ak soxna yi nekk ci waañu yëpp ñu ngi leen di siyaare di ubbi rek waxtaan wi di leen xamal daal ñu ngi ci màggalu poroxaan gi màggal gi nag bi mooy suñu ñetteel suñu dal bi bi mooy suñu ñetteel at ñu fiy dal waaw di sant sëñ na mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi. di ko ñaanal suñu borom mu defal ko tawféex ak ndam ak sutura ba lépp lu mu yéenee liggéeyal soxna si rek suñu borom dëpp ko kàttan gu mu ko mënee barakatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barka maam Jaara Buso ñu ngi leen di siyaare bu baax. ñu ngi siyaare bu baax a baax di siyaare sëñ Thierno Ndiaye di siyaare sëñ Souleymane di siyaare sëñ Saliou Faye di kontaan bu baax a baax a baax ñu ngi si bës soxna si nag soxna Jaaratullaahi bu so ñu ngi fii nii si ëtt gi di siyaar bu baax nag ni ko sëñ Souleymane waxee bii mooy troisième année ñuy nekk fii si bërëb bi ñu ngi ñaan suñu borom daal dolli taxaw bu baax a baax a baax a baax booloo bi di siyaar soxna yëpp nekk si waañ nga ñëpp di ñaan suñu borom dolli leen dimbale bu baax di ñaan suñu cerno suñu boroom dolli ko taw tawféex bu baax a baax barke si sa Basiiru ñu leen di siyaare di siyaare waa daayira bi ñëpp rek di nuyu sëñ Cerno Njaay sama nijaay dal bi neex na macha allah ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare di ko ñaal bu baax xéwal yi baawaan saawaan ci barke tubaa Touba barkeb Soxna Jaara dëgg yàlla kër gi ñëpp kontaan waaw koy ñaal bu baax rek yàlla sàmm ko aar may ko fan gudd ak wér ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp mu liggéeyal ko ci ñaan yàlla xéwal yi baawaan saawaan wax dëgg yàlla suñu xol sedd na bu baax a baax xarit yeeg am di jàmm yeeg mbokk yeeg ñëpp a teew wax dëgg ak soxna yi ak jigéen ñëpp teew nañ dara manqué fii ñu ngi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla dafa ñu jàmm ak xéewal ak fanu gudd ak wér ci barke Serigne di ko ñaan rek yàlla may ko fanu gudd ak wér te li mu bëgg a liggéeyal waa Serigne Thierno Bousso yëpp bu liggéey ko ci barke Serigne Touba. salaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk jullit ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp te di leen siyaare waaw di santaat bu baax si teew gi ñu teew fii ci bésu euh, maam soxna Jaara Bousso mii di màggalu Poroxaan teewal fi maam Thierno Ndiaye mi nga xam ne waaw moom day sunu mag di sunu kilifa di lépp moo tax ñu teew fi waaw moom ñu ngi koy ñaana rek waaw màggal gi di ñëwaat waaw moom mu kawe lool waaw ay ay xéewalam waaw yokk ko wér yokk mucc waaw moom dimbal ñun ñii tamit defal ñu wér gi ban teewaat fi jàmm waaw ñu ngi ko koy ñaanal dëgg fa yàlla màggal gi neex na lool ñoo ngi sant bu baax a baax a baax jërëjëf. rahmaani rahim barke borom Tuubaa ñi ngi ñaan suñ Muntaxa Mbàkke suñ borom yàggal ko fi lool wérali cëram. ba lim bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp suñ borom defal ko ko di sant bu baax ci ñëw gi ñu ñëw Poroxaan ci pàkk bu tedd bii di Bustaanul Aarifiina di sant soxna maam Faati Mbakke Naawel moom sëriñ soxee bi mi nga xam ne nii mooy Baay Faalu maam Astawaalo di Baay Faalu maam Jaara di ko ñaanal ci dooley sëriñ Tuubaa lépp lu askanoo ci Mbakke yàlla bu ko ci kenn ëppale yal na ko fi suñ borom yàggal lool wérali cëram waxtaan wi nag wax ji nag waxi pël nag la déeg bi bari na soow nag yi suur nañ suñ wax tàmbalee ci sëñ aafi bu sa yem ci sëñ aafi bu sa lépp de suñ bari ca xam ne lépp lu ñu yàlla jox tey ñu ngi koy sant njabootu sëñ aafi bu di ci jiital sama sang bu baax ba di sëriñ Thierno Bousso suñ borom yàggal ko fi lool wérali cëram ci barke Xaadima Rasul di ak mboolem lu askano ci kër sëñ Afi Bousso ba ci sëriñ Alaaji Bousso xalifa sëriñ Afi Bousso ñu ngi koy ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool wérali cëram ci barke maam Jaaratulaay mii ñu fekk ak njabootu sëñ Afi Bousso gépp ah di jottileeg cant nag goo xam ne nii sama xol dafa sedd guy ci nii ñu ma taxawee ci daara ji nga xam ne mooy Bustaanu Arifina di pakk bu sell ci poroxaan ma duppee ko bu sëñ Aarifi bu sëñ Aafi bu saga ca Touba ndax soxna Jaaratulaay mooy bàjjenu sëñ Aafi bu sa kon pàkk bi suñ demee tuddee ko bu sëñ Aarifi di Aarifi na juumuñu waaye nag maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne nii suñ borom indile leen fii di leen ñaanal suñ borom ak yokkute akuk wér kenn ku ne taxawaay bi nga taxaw yëg ko gis naa ko xam naa ko ku mel ni sama doom maam jaaratu lay mi nga xam ne moom lañ duppee maam jaara teraanga yu rëy indi na ko fi indi na fi beña bu doy sëkk indi fi sangal su doy sëkk ak i furi ak i banaana ak lépp ku mel ni soxna Yaasin Seck soxna Yaasin teraanga bi mu def dafa kawe njort sama kii mboolem teraanga yi nga xam ne ni moom lañ jëfandikoo ci suba la tàmbalee ci beña beek ngato yeeg pom yeeg oraas yëpp moo ko jaayante indi ko moom soxna Yacine sek moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla guddalu fanam wérali cëram ci barke Xaadimu Rasuul góor ñii sëñ Modou Gadiaga saa yi mbir mi jubee dana bàyyi item bàyyi léppam dootu noppalu guddi dootu noppalu bëccëg dootu nelaw guddi dootu nelaw lu jagal mbir mi rek la lay def kooku it ñu ngi koy jottali sant di sant sama commandeur gendarmerie bi nga xam ne moom la ñuy wax Serigne Saliou Faye manoon na maa xeeb ndax bâche boo xam ne ay ngelaw ak matelas yu taq dong moo fi nekk waaye teew day bàyyi lépp ñetti at yi ma sancee fii ba nëgëni lépp lay bàyyi ñëw su dikkee day dindi garage yi sànni fële lépp lu ma soxla suba ba jot ma nga ca kon loola ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ci ñaanal sëñ sëñ Tuubaa yàlla guddalu feram wérali ceram di sant sëriñ Yoro Faye di sant sama jëwriñ ji Souleymane moom itam yal na ko yàlla defal fan wu gudd bu ànd ak wér barke xaadima rasul di sant ñëpp sëñ Coulibaly mi nga xam ne moo nekk ministre de l'agriculture euh, moom it teew na fi dib boo xam ne ku bëgg sëñ Tuubaa la euh, doxam ak waxam lépp sëñ Tuubaa foo ko gis jëru ngay laaj ci sëñ Tuubaa rek la ñi ngi ñaanal sëñ Coulibaly moom itam suñ borom guddalu fanam wérali cëram ba fi mu bëgg a àgg yëpp suñ borom àggale ko fa ci barke Xaadimu sol maanaam daal bàyyiwuma góor bàyyiwuma jigéen mboolem koo xam ne nii yalla indi na la fi nga dikk fi maa ngi lay ñaanal ak yokkute gu wér a wér a wér am na soma benn délégation boo xam ne di teewuñu teewaguñu waaye ñu ngi ci yoon wi ñëw sëñ Abdoulahad Boussa jiite ko moom sëñ Abdoul Moutalib busa ak ku ñuy wax Baye Cheikh Ndiaye moom Baye Serigne Ndiaye Guédé ak sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Moustapha Bassirou ñu ngi ànd ak saa su ne ñu ngi ànd ak man bis bi di ànd man lépp loo xam ne nii ñu ngi ci ah, di sant sama taaw bi nga xam ne moom la ñuy wax soxna ma Awa njaay itam wax dëgg yàlla taaw bu mat taaw la waaye nag sama doom nga xam ne moo yor sama lépp lépp lépp ginnaaw bu yàlla wéyee maa ngi sàkku ngeen ñaanalal ma ko moom itam di ku ma déggal ñu koy wax sëñ Cheikh Ndiaye Mariamu Ndiaye kooku it ñu ngi koy sant ak ak i rakkam yëpp. mu wax dëgg yàlla taxaw bi mu war a taxaw yëpp mi ngi ko taxaw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu màggal koo xam ne nii ku ñu nangu lay doon yàlla dimbale ñu bool képp koo xam ne amoon nga fi bàkkaar yàlla na ko suñ borom raxas ba mu set wecc ni ndox di raxas saabu képp koo xam ne ni indi woon nga fi wéradi yàlla ko suñ borom fang barke borom Tuubaa képp koo xam ne nii am nga aajo ak lu ba rëy rëy rëy ñu ngi ñaan yàlla fay ko ki nga xam ne ni moo jiite waañ bi ñu koy wax soxna Codé Diagne ñi ngi koy sant bu di ko gërëm di ko ñaanal fan wu gudd wa ànd ak wér-gu-yaram wa Xaadimu Rasuul suñ noppee nag ñu ngi jox euh, li nga xam ne nii mooy xasaayit sëñ Tuubaa yi ñu ngi jërëjëf di sant bu baax jërëjëf Xaadimu Rasuul lam yabdu misl Mustafa Muhammadin sirran wa jahran fil baraaya samadi lam yabdu misl Mustafa Muhammadin سرا وجهرا في البرايا سمدي مدى الإسلام والكفر معه وبنسيات لكل سماح يخاد بساحر والباطن من أتى لله في كل زمن حكمته أن الخيار بأصحابه والاستقامة وصفا وعبد لبان كون المصطفى رئيسا لكل من غد فضل رؤسا الغد ما فوقه خل رقبه من أستعار وراء كل من خبه محمد مثال الميات فيما أمده وابدا لا يأتي ثبت أن ربنا عالم يريد مثال لا مثل لا يريد لو سيادة لا البراح يوم الصبح ولا أصبح هو النبي ورسول والعليل وهو الحبيب والإمام والدليل براه البديع من غير جمال وساء أن الدوس عن خير كمال كون نبي منتخى محمد غير وراء waral waral muxtaar indi samedi subhaan rabbika rabbil izzati amma yasifaan wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi walhamdulillahi rabbil aalamiin maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi nuyu mboolem taalibe yi mboolem kilifa yi mboolem jullit bu nekk Porokhane ak bu am yéene ñëw te amoo ñëw dëkk bi moom maanaam bi ko sëñ Bassirou sosee dafi dafi màggal lu néew jóge fi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Moustapha Bassirou sëñ Moustapha Bassirou nekk fi àggale yéene sëñ Bassirou maanaam daj na loo xam ne nii waaye ndam rek waaw ndax ndax ndax eh, métti woon na lool waaw jamono yooyu eh, courant amu fi aw yoon amu fi te màggal gi toll na noo xam ne réew mépp a ñëw eh, groupe day mu liggéey ay kër yu bari yoo xam ne dañ fi dalukaay dafi groupe ba yàlla indi fii nii ak njàmbaaram moo tax mu mel nii waaw nañ koy ñaanal nag yàlla doole ay leeram moo kii rakkam yi jiitu ak di ñaanal si muntaxaa mi mu fi bàyyi yàlla ay wayafal ko yan bi ci doole seen Basiru Mbàkke man daal loolu laa ci xam Poroxaan Poroxaan moom métti woon na eh, métti goo xam ne nii sëriñ bi dañ fi lu ne waaw ñu ñaan nag yàlla yàggal noo yàggal ñu yëfe yàgg fee màggal si di fekk sëriñ bi barab bii di ko wër lépp eh, eh, ay ay ay ay armée la woon ci man te doole sëñ Moussa nga xam ne du du du du du du jéem dara te te te sa antuwut moo toxal armeel yi defar barab maam jaara bi dafi daare daare maam jaara joo xam ne nii li ay turandoo maam jaara rek a fay jàngee lu jafe waaw loolu loolu daal seet naa ko ci te lépp ñaan sëñ Thierno Ndiaye mi nga xam ne moom itam moo moo fexe ba ngeen ñëw fii yàlla mosoo ko te te mu yàgg fee màggal ñu yàgg fee daje waaw jërëjëf yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem taalibe yi ah Porokhane nag moom lépp lu si mën a wax rek ak ay seere rek daañu am luñ ci bàyyi ndax soxna si moom ab liggéeyam moo demee noonu ndax yàggu fi de ndax jëmm jong xaay maanaam boo ko dee seet ci fanweeri at ak juróom rek la fi am liggéey liggéey bu toll nii a ah, moom nga xam ne jëmm la xane nga xam ne maanaam mënee su koo fay poroxaan nag moom day dëkkub boo nga xaye soxna si moo ko liggéey liggéey boo nga xam ne maanaam kenn fekk ko ci ah xam naa ne nag képp ko nga xam ne maanaam jigéen nga war nga doole góorgóorlu ndax uh, doo mën a am lañ soxoon si am de waaye nag nga jéem a góorlu ndax jël ci barke bi uh, bu baax a baax ndax soxla na loo xaaye de maanaam ñëpp la liggéeyal ñun daal ñoo ngi koy ñaan suñ borom uh, dolli ay leeram ah te sëñ mun sëñ Moustapha nga xam ne maanaam moo di sëñ Moustapha Bachirou de li ci Bass Diop wax rek doy na ndax jëmm la joo nga xam ne maanaam jëmm ju organisé woon ak dundam la organisé ak njabootam ba tax na képp koo nga xam ne day ci yaa ngi nekk ci yoonu sëñ Touba lu bari da nga ci ay jikkoom ndax ñu koy ñaanal suñu borom dolli ay leeram ci barke borom Touba. bàjjen maa faati gone sax mën na koo fanaanal àll yendal ko àll sëñ Thierno yaay nag moo koy sant cant gu wér goo xam ne daa amub tàmbali waaye amutub fu foo xam ne fa lay yem. ndax dafa baax boole ko ci lépp ba indi ko poroxaan jox ko ab dal. at mu nekk nag day tàmbali rek waaye fas na yéenee dem ba day baas fii fépp étage ko. yàlla nga dund ba étage ko ci barke maam Fatou Mbacke naawe barke Serigne Touba barke Cheikh Son bu Mbacke mi waajuram bàjjan maam Fatou baax rek la def ku weddi laaj ma ko man mi mu jàngal lépp ma feree ci ay loxoom daanaka mu jàngal ma lu jàngal ma taalibe jàngal ma toog jàngal ma yegg ba fi ne nii fu ma dem rek rëccuwuma ko doonub dong rek nag akub taalibe yàlla na ko yàlla guddal aw fanam lool te wérali cëram. di wax ne ñoo ngi bu baax. yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba di sant euh, soxna si nga xam ne moo ñu dajale fii muy soxna Jaara Mbàkke waajuru ku tedd ki di ko sant bu baax a baax a baax di wax ne macha allah lii lépp jigéen na ko waral jigéen jooju ñun ñëpp war a roy ci moom muy soxna su tedd soosu di soxna Jaara waral bés bi ñu tànnal ko ko di ko ko màggalal ci poroxaan gi ñu nekk. di ñaanal yàlla ak yeneen tibeeg sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal yàlla sëñ euh, maam Thierno mi Ndiaye di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wér ak Baye Bas Diop ak njabootam gépp yàlla suñu borom dañoo boole ak ñoom ñuy ay taari taalibe sëñ ba sëñ macha allah ñu ànd ak ñoom ci cofeel ak dëgg ak ngor ak dëggu ànd koog ñoom Baye Bas nag macha allah doon sa waajur. xel di na xel dina dal ñun ñëpp ñu bokk di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal Jóob ak njabootam yàlla na fi yàgg moom tamit te wér ñu yàgg di ànd ak moom ci màggal gii ci kattanu yàlla ak mbaaxam barkeb Soxna Jaara Buso ñu ngi sant ñëpp di ziare ñëpp maam Thierno maa ngi lay ziare sama journaliste bi macha allah xarañ baax. am fulla am fayda macha allah maam Thierno ñoo ngi lay ziare bu baax maam Thierno Faye yow it ñoo ngi lay ziare di la nuyu di la sargal ci bés bii di ñaan yàlla ci barke soxna Jaara Buso yàlla na suñu borom eggale mébét yëpp ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Euh, noo ngi ziare borom magal gi soxna Jaara di ñaan sëriñ Muntaxa moom sëñ moom sëñ Basiir yàgg fi lool te yàgg koo taxaw maa ngi ñaan kii sama sëñ Moussa Nawel yàgg fi lool te yàgg taxaw magal gi. noo sant bu baax na at mun ñëwee dañuy gën a sant noo sant bu baax a baax a baax magal gi moom euh, li ñëpp yëg rek moom du am lu ñuy laaj liggéey bu soxna si liggéey la bàyyil na ko fi nu fas yéene cee jàpp nag di ko doxal di ci sant bu baax nag di ko ñaanal sun borom yokki leeram maa ngi ñaanit ci barke borom màggal gi sëñ Moustapha sëñ Basirou yàlla sun borom yokki leeram ci barke Cheikh Amadou Khadim ndax yaatal gi fii ak dimbal gi mu dimbale dongo yi ak daara ji mu fi def nga xam ne dongo yi dañ ci génn di tasaaroo ci réew mi eh, soññ la nit ñi lool soññ jigéen ñi soññ yi ñi nga xam seen ñoo am xemmem teem ci daara ji ndax am na ñuy barkeelu ñu bare bare bare ñoo xam ni ñu ngi barkeelu soxna si te te te looloo ko sabab ndax ab donga jàng si fi ba wàcc alxuraan dem ba Kébémer wala mu dem ba Louga wala mu dem ba Ndakaaru wala Fuuta nekk fa dafay jàngale nga xam ne soxna si la juddoo dem di jàngale foofu loolu yaatalu sëñ Moussa Bassirou yàlla na suñu borom yokki leeram nuyu nu yàgg fee ñëw yàgg fee rek sëñ Thierno njaay mi sama tooma jërëjëf jërëjëf jërëjëf jigéen ñi it ñoo ngi leen di soññi bu baax soxna si nag boo boo fi ñëw moo am loolu mu bëgg lool soo fi ñëw da fi ñëw ak Pastef ñibbiwaat ak Pastef te kala suñu borom booleel muy góor itam eh, soxna si lii mu am nii kat ab liggéey ko may ab liggéey ko may du juddu ab liggéey ko ko may liggéey Sëriñ Tuubaa moo ko may lii mu am jigéen ñi maa ngi leen di soññi kenn ku nekkal suñu borom booleel na nga takk sa ndigg ci moom ñooy ci soo ñëwee ci bis bi gis lii ab soññee la ci yow soo delloo ba fa nga dëkk yow jigéen ji na nga takk sa ndigg bu baax a baax ci ko suñu borom liggéey li yàlla ci moom mu bis bu lee see nga di kat takk sa ndigg ci soxna si soxna si bëgg na lool lool ñi amagul borom kër itam nañ koy ñaan fii te suñ ñëwee fii buñ ñaanee borom kër ba am ko itam nañ nañ xool soxna si roy ci moom góorgóorlu bu baax a baax a baax te adduna dara newu fi ab liggéey moo fi nekk bu am njariñ yàlla na yàlla sax yàgg fee ñëw yéen ñu ngi lay sant bu baax a baax yàlla na nga fi yàgg ñëw ñu yàgg taseeg yéen ci barkab soxna si barkab sëñ Bassirou Mbacké